wasalaatu wasalaamu al atmaanil akmalaani alal habiibi muhammadin sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam amma baad fa inna min aczami nicamillahi alayna nicmatal islaam فهو دين الفطرة والوسطية دين شامل كامل دين العلم والأخلاق دين صالح لكل زمان ومكان دين اليسر والرحمة دين فيه حل لجميع المشكلات فما أحوجنا في هذا العصر خصوصا لتبيين خصائص هذا الدين ومحاسنه للعالم أجمع ليظهر لهم الصورة الحقيقة الناسعة لدين الإسلام wa inna hadyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa tatbiq al ilmi li hadha din لذلك أنتحز هذه الأمسية لأتباحث وأتدارس معكم أو على الأصح لأراجع معكم خلال هذه الأسطر القليلة موضوعا هاما يدور حول المرأة لأنه موضوع يمس حياتنا اليومية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa moom mi nga xam ne mooy borom mbindeef yi ñun ñi mooy sunu borom arrahmaani arrahim moo jël yërmande lenn sédd ko waa àdduna yépp ñu bokk ko waaye mu jël la ci ëpp denc ko ngir ña ko safoo jaamu ko ci ni mu leen digale ëllëg yowmal qiyaamati maaliki yowmi diin bés boobu moom rek la li ma neer moo la ko al yow kenn du àgg bu dul moom ñëpp ànd rox ya ne ko lillahi lwahidil ahad moo tax mooy maaliki yawmi diin bés boobu amul kenn moom kese kon nag ku yeyoo jàmm yàgg na ku yeyoo di dimbali doomu aadama yi ci kan la war a dimbali koo tawxiid day dugg wa iyyaka nasta'in yow yaa koy wax 17 fois par jour ba pare wuti ndimbal feneen moo tax bunt yi di tëju kon nag ñu julli sëlmal ci ki alal habib muhammadin sallallahu alayhi wa ndax mbokk yi fa inna min azam xéewal bi gën a mag ci àdduna mooy nga am ni'matal islaam mooy nga bokk ci diinal islaam mooy xéewal bi gën a mag ndax du ku mu neex nga bokk ci ndax mooy diine ji nga xam ne moo sell mais nag mooy diine équilibre al wasatiya adduna ak dunya li ñuy wax diine ak jamono xam ngeen ni bi ngeen xëyee ba léegi sëriñ Sam nekk fi ñoo ngi ci jamono ñoo ngi ci jamono waaye diine terewu ko su dul ne nag bu diine jotee nga ne fit tegg jamono jublu ci diine te xam nan ngay doxale ci diine nan ngay lan mooy sa tatbiq application yi nga xam ne moom mooy war a tax diine ji ngay def yàlla borom bi subhanahu wa taala nangu ko loolu moom ay mooy al wasatiya mooy équilibre loolu tax yàlla ne wa kazalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnaas équilibre boobu ku ko amul cuune nga mooy fa wabtaxi fi ma ataka llahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yaman bi duniaka ka annaka taisu abadan waaye nag waamal li axiratika ka annaka tamutu xadan su àdduna jotee melal ni ku dul dee waaye bu jaamu yàlla jotee melal ni malaaka bi yow rek lay xaar pour yóbbu mbokk yi loolu nag mooy li nga xam ne moo ñu të ñun waa waa ñun waa Sénégal dama ne moo ñu të ñun waa Sénégal rawatina nag ñun jigéen ñi ñun jigéen ñi sunu jaamu yàlla dafa xejam dañ koo rukk waaye mokkul xam nga nit dina rukk laaloo te du mokk ñun jigéeni Sénégal danoo rukk laaloo bi waaye mokkul moo tax lii ngeen xalaat nii ñu ne tey le premier mai ñu neexal xëy suba sol suñu yére défilé ji añ jot ñu añ tàkkusaan jot ñu toog sëriñ saam macha allah takkat seyduna Muhammad yi woy ba suñu xol sedd aka am solo parce que mbégte dafa baax day dundal xol mais bu xol bi dundee yaram bi dund ruugi nag loo ko séet ba raana ala qulubihim xomaat xomaat yi ci xol yi nag bu koy dindi li tax yàlla na xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim ah boobu lu koy dindi nga xam ne yàlla encastré na seen xol mënatuñoo waar faale wuñu xëy ba ñuy julli faale wuñu koor gi di ñëw ndax dinañ ko woor faale wuñu azaka faale ñu dem makka faale wuñu shahadatu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah am na ñu ko mënul wax te ku ko mënul wax wax ji wérul dëgguwul duggagoo ci diine l'islam yaa ngi julli rek waaye demagoo de kon ku ñibbi na càmbar baat yi ndax mën na ko mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba tax na loolu nag jërëjëf yaay booy waaye jaaro yi laa bëgg de waaw jaaro yi jaaro yi moom laay laaj xam naa ne bu ma ko joxee damay ragal yii moom bu ko soxna Saam gisee ne moom la bëgg te yii moom dina doy waar xanaa dama koy jox benn bi rek takk benn bi su ko defee ma leen di nuyu nag di leen ziyaar sëriñ Sam wóor na yàlla su doon sama sago kenn du waxtaan yow da woy di woy di woy di woy ba fajar sëriñ sama biir xol la la yàlla def man woy moo may daaneel léeg-léeg nag ma nekk sa kër ga di woy xale yi yëg ne ma maam da jooy ma ni neexul ñu ne ma yii bi moom bu mu jëm kaw man woy si wa woy moo moo may daaneel sànq bi nga bi nga tuddee al amin sama papa jooju sama xol dafa sori ndax dafa nekkoon sama xarit bugguma ci wax su ma si duggee lu ma dem euh, nañ ko bàyyi noonu euh, saam xam nga yonent bi sëriñ libaas xam nga yàlla yonent bee ko gënal ñépp tegu ko fi ko teg tegu fa benn doomu aadama ndax yàlla du yonent bi moo dem wuti yàlla mais yàlla moo ko créé defal ko ne ko lépp yow la xam nga bokkul ki dem wuti ak ki nga xam ne dañoo defal lépp jox la waaye benn yoon la ko yàlla musa mere gëdd ko gëdd abasa wata walla an moo tax ñoom sàmm ñi nga xam ne yàlla dafa muur seen bët ci kaw waaye xam nga ni ku sàmm bu wooyee bu jàngee bu waxee nga xam ne kii am na basiira te mooy xolu xolu xolam bëtu xolam mu ngi gis te yàlla suturaal na leen ba yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallama ñoom àjjana ñoom ñoo fay jiitu ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo gumba abdullah ibnu um maktuum gumba la woon nekkoon ak yonent bi mu ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallama fekk na ay kilifa ñëw muy wax yonent bi dama laa soxla dama laa soxla yonent bi mel ni ku ko xaw a ëññalal kanam xaw a mel ni mel ni ku naan kii daal sonal na ma rek yàlla yónni jibril ni ko dawal bala moo rikkee ku may may nangu li ma ko joxoon loolu kooku ma ko ko may moo tax yéen fu ngeen toll fu ngeen egsee ñëpp dañu leen war a teral ndax yow li ngay wax neex na yiw na ànd na jamono te macha allahu taala saf nga ñëpp nag yow yëkkati sa loxo ne Sénégal ñëpp man de musuma gis ku ne bëgguma saa sama yaay booy woy day jooye jooye jooy ba ne ma waay waay xale bi fu ma koy gis ba teral ko ne ko yaa indi boo ma koy jox mu koy jox waaye yow nag yow dama laa wóoluwul rek ne ko déedéet boo ma joxee rek mu yegg si moom sa soxna itam nee ko man maay yaayam maay gorom ne ko lu ma sol bu ko soxlaa rek na ñëw jël mooy boroom bokk ko kenn ndax yow Pape sama rakk bopp la yéen lu ma leen defal wallahi la azim sama sëriñ ba Cheikh Ahmed Tidiane dafa wax ne ku ñeme rekk neel koo jàkkaarloo li ma la yéene yàlla naa la si jiitu mais man képp kuy doomu aadama waxuma sax ñiy jàng di jàng arab lu ma leen yéene ak sama njaboot yàlla naa leen si jiitu man sama xol ngeen nekk su ma su ma lay Pape Hann su ma koy déglu du ma xamante ne Pape Hann la sa Assane Seck dama dem ba dafa may napp sax léegi ndax cofeel gi ma am oustaz yi may àndal soxna ay Mbaye soxna Faat Kayre sama rakk yi nga xam ne fu ma tourné gis leen ñu nekk sama wet noonu laa mel ci ñoom euh, Adja Ndeye nag ñaŋ gis nga tem bi mënoon nañu libaas wax rek biographie Ndeye Niang doyoon na pour mu nekk temu mu ndax man ndey dëppi maag ndey mbeng muy seen njëkki seen xarit di doomu paawaali mbeng dëkk fii quatre-vingt-douze lañu ànd di ñëw ci ndey ndey ñan ñuy mag yi ba léegi salon ñëpp a may woo kaay salon ndey ñan ba léegi xale yi ñu ngi di bugguma leen tudd ñoom gis dañoom faatu ngisali añilaan ak ñeneen ñi seen rakk yi su ma ñëwee du ñu nangu ma fay dërëm damay daw damay daw yàlla xam na ko ñuy xale yu yaru baax ndey ñag man ak moom yàlla boole ñu nag ñu dem ba ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa bi muy dem màkk ci man la ñëw màkk yóbbu màkk waaye ndey am na yar ndey ñaŋ am na teey ndey ñaŋ am na xol bu rafet ndey ñaŋ am na humilité boo xam ne bëgg jigéen ñi man moo boobu sax duma ko bëgg a wax bëgguma sax ñu leen di wax ay handicapé bëgguma ko ndax handicapé wu leen handicapé ci bopp la nekk li nga wax dëgg la ay jonga ma ngeen yéen a ngi yor seen njaboot wallahi azim bari na jeeb buy dox di waaxu yore bëtam yore tànkam te li ngeen di tekki ci réew mi tekkiwuñ ko yal na leen yàlla jàppal boppam démb rek maa ngi koy wax benn xale bu jigéen bu loolu dab ma ne ko lii mooy li nga xam ne 30 secondes yu nekk sa dund mën na laa arrivé ndax yow jàng nga ba nekk médecin commencé liggéey feebar ñëw ne la tàpp te ku fi sibbiru say tànk damm ku fi ku fi wànnal say bët gëmm ku fi toxoni kaani sax bu ne topp sa bët pare nga dootoo xoolal di mu ngay def kon yéen handicapé wu leen mukk mukk mukk mukk si àdduna ñu ngi leen di wax ne ñu ngi ak yéen te nii la tey am na ministre boo xam ne conseiller la macha allahu taala yow kan moo la gën a jongama ah ak sama turandoo ah ah Fatou Bintu ñëpp leen bëgg ñëpp a leen jox seen place les femmes coiffeuses xam ngeen ne yéen yéen bu du woon yéen dama naan léeg-léeg ma ne xale yi ci télé bi bu ñu xawee am lu leen naqari ma ne ma ne directeur xale yii ñooy defar suñu kanam yu yàgg yi de. buñ ci jaarulee du ñu génn de bala nga koo xam si tele bi nga gis ku xëy si te mag yow du nangu ko ko xool surtout nag ñi doon diw ñëppay daw làqatu ji ma ne leen bu dul woon ñii ñun ñun ñemewuñoo toog ci télé yi kon nag waaye tey nag dañ maa boycotté waxoon naa nag nee nañ ma bu ko wax waaye tey moom dañ maa talul moo tax tey ñu bàyyi sama kanam gi mu mel nii mais turandoo kontaan nañu ba fu kontaan yéen euh, libaas mi nag saam man ba ma xamay libaas ba tey jëndatuma produit jëndatuma parfum libaas bés ni ki tey ana Kiné Libaas Kiné Libaas anamu Kiné Libaas bëgg naa bés ni ki tey jabaru saam bëggatuma jërëjëf turando kontaan naa bëggatuma mu jënd parfum bëggatuma mu jënd diw su may dem dañ may duggal même màkk suñuy dem produit yi ñu soxla libaas mi libaas ñoom moom ci prison yi te libaas libaas bu la neexee nga dem suba yow moom maa lay yebal bu la neexee suba demal wala nga yónnee boutique am yëpp kër aram jàppale boo dem ñu jël yëkkati téléphone ne ki ne libaas wallahi lazim xam nga man weesu naa ci àdduna fu may waxeeti dara ndax bala maa jël micro dama dugg fonction publique def continent àdduna bi yëpp wuti conteneur di liggéey kon maa ngi sant yàlla lu ma waxal doomu aadama rek dafay fekk ne loolu moo am waxuma waxuma li ci biti waaye wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa axfaaha xatta laa taalama shimaaluhu ma tunfiqu yaminuhu mooy libaas yamin la muy liggéey ci ay doomu aadama waxuma lii li feeñ de prison beeg yooyu looloo gën a tuuti te boole na koog modeste boole na kook yaru ay machine am ay ay ay yeneen yeneen yoo xam ne sëriñ ab sama papa nee na lu nit ki baax la yëpp soo ko waxee yaata toj yow libaas ñu mënuñu wax sa lépp dañ lay bàyyi ak Maulana tabaraka wa taala bàyyi laaj sëriñ Touba ndax yow loo dund doyul wa amma ma yan fa naas fa yan ko yow gudd fan rek lañ lay ñaanal ak ñi ngay àndal monsieur Ndiaye nii ak mbooleem sa soxna ki ne libaas ndax yàqu ci dara ndax nit jigéen mooy kër am na lu mu doon demee ñun ñii ak déggan yal na ko yàlla yërëm déggan moo ma lay yàqaloon ak mag ni nga ñu téye télé ba ni nga téye xale yi xale bu courant kuppe mu ne dem leen ci libaas di déggan ne leen seet leen ku sa ku sa ku sa ku sa euh, doom amul meew ñu ne libaas hôpital ordonnance bu ñu yónnee ñu ne Libaas ñun dañ koo laaja laaj ba fi mu nekk man dama koy nëbbatu dama koy làqatu boo nag ay tarangaam da ngay sa kër rek mu jokki-jëkki yónnee la taranga Libaas jërëjëf nii nga defal ñii jigéen ñii wuutu ci yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla yàlla dina la wuutu ci sa mbir yëpp te si kaw si kanam rek milliard bi moom day tegu rek waaye dootul wàññeekoo ndax nag yàlla moo ko wax nee na kuy joxe man yàlla may lay jox te yow dangay ngay joxe te xooloo ci dara su ko defee daanaka guddi na xale yaa ngi ñuy toog ñun daanaka amatuñu lu ñuy waaraate waykat yaa ngi nii wareef Ramadan a ngi ñëw incha allah ñoo yéen lundi ba vendredi tous les jours onze heures ba midi et demi lu ngeen bëgg a dégg ci xam-xam incha allah li ngeen ko dégg li ma bëgg rek ngeen yóbbul ko ngeen yóbbaale ko mooy weer wi ñu nekk mooy baraxlu te weer wi ci la yàlla di jon rapportu année bi li ñu def daaw ba weer wi la yàlla di toog jël suñu rapport général di ko lii ñun ñëpp ci la 15 bi passé yàlla jël na suñu rapport téye ko ci loxoom xam nga semaine bu jot ñaari rapport di lay yéen maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid tous les lundis ak jeudi li nga def malaaka yi dinañ ko yéegal jox ko yàlla chaque matin bu ñu xëyee julli fajar ba timis am na équipe buy ñëw su timisee ba fajar équipe boobu day dem beneen équipe ñëwaat te ku ñëw dootoo dellusiwaat te ku dem sa dossier lay yóbbuwaale man ya'mal misqaala zarratin xayran yara fa man ya'mal misqaala zarratin sharran yara kon da di bàyyi xel ne lépp lu ngeen di def ci àdduna yàlla borom bi subhanahu wa da koy jot ci bés bi si 24 heures yi boobu mooy dañ koy teg mu ngi si umul kitaab malawul ala ñu ñëw teg range mais nag yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne ko lu tax. ngay woor tous les lundis ak jeudi mu ne parce que sama rapport semaine ci lay yéeg te damaa bëgg saa yu yàlla sëppoo sama bos wëlbatiku xool ma te ñun ñëpp daf ñuy xool wa aqrabu min hablil warid yàlla moo nu ji gën a jege suñu boobu xol bii te su lay xool yàlla nee na dama bëgg suy ranger sama dossier mu boole waale ci koor ndax koor mooy jaamu yàlla bi nga xam ne kenn mënu cee tricher mu lii wa ana ajzi bi yàlla nee na koor moom maa koy jël directement te maa koy fay yéen mbokki jullit yi mu des nag rapport annuel bi bi nga xam ne at la yéeg te ndax di nga fekke déwén ndax dinañ fekke déwén fekke déwén yàlla la gën a wóor fekke dix sax yàlla la gën a wóor asamaa déwén sori na mbokk yi diwin boobu rapport boobu dafay bokk si li ngay àttee ëllëg yowmal qiyaamati waxoon naa leen sànq maaliki yowmal jiir xam ngeen bés boobu ñaati junniy at la at la benn bés yowmal qiyaamati hmm? ñaata junniy at la cinquante mille à juróom fukki junniy at mooy benn bés yowmal qiyaamati fiil bu gën sew bii lañuy ñuy tàllal safara nekk ci suuf ñu war ko jéggi jóge ci buub yi jëm pour dugg àjjana ku nekk yelu bàkkaaram ku yore conteneur xëcc ku yore gaal xëcc ku yore bu sew xëcc ku yore bu mag xëcc ñëpp fa la ñuy jaar ba ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa moo tax moom yonent bi nee na ku la mënalul dara foofu na la bàyyi nga jaamu ji yàlla yow ma yafirlu mar min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi lu tax li kulli mri'in minhum yowma isin nun yoni keroog amul ndey amul baay amul jëkkër amul sëriñ ñëpp yonent bi nee na ba ci moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fatima ne ko papa man nu may def mu ne ko ba bés boobu man xaw ma la doo ma xam ma lil wasilatu fi dunya wa akhiratin siwa alladi saada man yamdi wa man yaati آخرة آخرة سوى الذي زاد إيه افلني يمضي ما مولد واجعل قلادتك دي في أصابع من عليهم أنزل دنيا وسيلته وأمي اسمه كم كم إني رمو موي باي سادو مجوز دقلا سوى الذي سادم يمضي ومن لخيتي دافزع خير الرسول مصباح ahlal jannata wa man asaani faqad aba ku ma topp doo dugg àjjana ku ma weddi doo dugg àjjana te mbokk yi Adja Nafi yonent bi dafa sëpp safara dafa dem àjjana xool ci al isra mu ne bi ma demee àjjana ñii ñoo fa ëpp mu ne miskin yi ak fuqaraa moo tax maa ngi ñaan yàlla yal naa dekke ak ñoom ndax maa ngi ñoom ëllëg ñooy bokk wàccuwaay mu sëpp safara mu ne bi ma demee safara nag jigéen ñi ñoo fa waalo waalo yi sama mbokk yi yéen mag yéen a bokk man sëtu Yërimani Mbóoj la yéenay sama mbokk tax yonent bi ne jigéen ñi ñoo ëpp safara ne la parce que ñoom naakiraatul maaruf lañu dañuy weddi mbaax bu ñu meree rek saalit commencé na <laughs> eh, yow dimbali ma loolu dafa gaaw si ñun suñu meree rek te laysa shadidu bi suraa innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-adab moo tax moytu leen di mer loolu mooy ñi sellal xam nu ñuy jaamoo yàlla ñooñu la yonent bi di wax de ne ñooy naakiraatul maaruf waa ana ñi xamul yàlla nag jaamuwuñ ko ana ñi mokkalul faatiha ana ñi mokkalul faratay njàpp ana ñi xamul nu ñuy sangoo set am ana ñi xamul nu ñuy sëye ak seeni boroom kër yéen jigéen ñi damay dégg ñuy wax naan bés bu ma leeroo sama ndeyjoor du loolu la ñuy wax yéen góor yi du yéenay suuli est-ce que bu ñu suulee dañuy jël ndeyjoor bi nga tëdd ci leroo ko dañ lay ngegenaayal suuf si lañ lay ngegenaay benn ñu defal la laxdu walla ñu defal la chaq laxdu walla chaq chaque metti na de ndax du saxatane nga am chambre à coucher ñu jël salon bi taf ci ay xeer wala dénk chaque la ñuy gën a def man nag nee naa sa mbàkk nañ ma laxtu parce que laxtu moom moo xaw a tane tuuti mais ñu xotti percal bi tuuti fii xam nga pour lan pour sax yi am fu nuy jaar pour mën di ñu lekk suñu duufaay yii nii naa yii sax yi dong ko moom yàlla am ci soxla xam nga lu yàlla am soxla. jëf yi inna laha la yanzur ila qulub wala ila amalikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum xol yi xol yi lay xool ana ñu fi gën a fiir ana ñu fi gën a mën a jëw ana ñu fiy dox si rambaaj ana ñu fiy dox ci ngeleju ak ngoobu waylun li kulli lumaza ana ñu fiy dox ci xeebaate ana ñu fi sànq julli fajar ana ñi nga xam ne suñu gisee baax toog ñaari fan di marsale du ñu dellu sangu du ñu julli di xaar ba aye ana ñi nga xam ne bu ñu wasinee toog 40 jours du ñu julli ana nga xam ne fu ñu toog ñett bu kenn ki demee ñaar ñi dese ko jëw ko ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma axihi mayitan fa karitumoo ana ñuy lekk yàpp nit ñi ñu na ñun ñii la ñun jigéen ñi moo tax ba pare ñoo gën a ñakk xam suñu diini léegi sax mu ngi léegi nag sax maa ngi wax naan góoru Sénégal attention ndax man jigéen ñi ñu bari xam naa leen ñoo xam ne y a dix ans mokk luñ ko woon tey xam naa leen waaqia la ñuy jullee ak sóoratu kahf ak sorotu yaasin fajar man xam naa leen génn nañ samay daara ak oustaz Fat Kayrame ak oustaz Aïda Mbaye mii ak yeneen daara tant d'autres yu dul jeex am na nag ñoo xam ne ba léegi tàlluñu ko mbokk yi ñu ne bu ñu leeroo suñu ndeyjoor xam nga kañ la kooku rôle jigéen la xam ngeen ne ku nelaw dee nga waaw ku nelaw dangaa dee ku dee nag dañ lay dañ lay suul sax yi lekk la mais booy nelaw guddi di tëdd sa lal sax yaa ngi ci kaw lal bi ndax sa yaram moo koy dégage gis nga dara tey bu dee woon nga teg ko fii ci taabal bi di ko surveiller bàyyi ko fi 4 5 jours mu nëpp sax yi foofu lay jóge génn kon suñu yaram yi ñoo koy yàbbi kon ñun suñu yaram yii saa yu ñu nelawee ba yeewu dañuy sëpp suñu tànk bu ngeen yeewoo lu ngeen di wax lu ngeen di wax bu ngeen yeewoo lu ngeen di wax yéen jigéen ñi bu ngeen yeewoo yéen góor ñi bu ngeen lu ngeen di wax alhamdulillahi lazi ahyaana baadama amatana wa jaalana min al ana ñu ko fi wax te yàlla rek tax ku ko waxul bu mu yëkkati sa loxo ku koy wax boo yeewoon na yëkkati loxoom si jigéen ñi alhamdulillahi lazi ahyaana min baadi ma amatana ahyaana alhamdulillahi أحيانا أماتنا أنا يبكينا الحمد لله الذي أحيانا أحيانا من بعد ما أماتنا أحيانا Mauro Mondo Kawaya الحمد لله الذي أحيانا أحيانا من بعد ما أماتنا أحيانا الحمد لله الذي أحيانا أحيانا من بعد ما أماتنا أحيانا foo jëm foo jëm boo jógee sa law laaj foo jublu si wanag bi nga jëm boobu nga am na nuñ fay duggee ak loo fay wax ba ba ngay si waat guddi ci kaw lan bi jël sa ndeyjoor nag foofu ngay leroo sa ndeyjoor amul fenn fu yonent bi teqalikoog yow ci loo war a def foofu laa wax ba ba ngay tegaat sa tànk si néeg bi gis nga loolu tubaab yi def nañu lu nekk xool nañu désinfecté nañu jënd nañu ay pompe bind nañu ay poudre mais dara mënu koo rey te yonent bi yaa mille quatre cent quarante jàngale na xam ngeen lu koy rey soo duggee sa néeg balal dara bi lu mu jekki-jekki neel bismillaahi bismillaahi ñu dee ñoom ñëpp nga beesa xoolal ni mu yombe moo tax ma ne leen sànq diinul islaami diinu yusru tubaab yi xool ko def ko xam ne waajaa ngi nii mooy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du morom moo waxoon Fatima ne ko Fatima mu ne ko labbayka daaw ko sax Fatima nag xam nga lu mu ko doon woowee ummu abi yaayu baayam yonent bi gàddu yaayu baayam mu ne ko kaay ma jox la lu gën li may laaj mu ne ko soo demee ci sa ci sa ci sa tëdduwaay tegal sa ndeyjoor allahuma bi ismika wadaatu janbi moo tax lal lalu néegu jullit dafa am position bu mu war a nekkee comme toilette jullit dafa am position buñ ko war a posé moo xam chaise la moo xam euh, turki la tastaqbilu l qiblata wala tastadbiruha li xaidin aw li bawl jullit buy dem tiwaan toilette warul penku warul sow jublu ko moo tax suñu toilette yi suñu kër yi dafa mel ni moomuñu ko kër lu mu rafet rafet suñ ko tabaxee def ci la waa boo xam ne boo ŋàppee sa tànk boo pataa ba mel ni man nag ci daanu ngay dëkk mais lu la teree defar jàppukaay sa salle de mais amul pour roy tubaab yi foofu la jëkk di ñu xeexee même suñu position wu kër yi xool leen ko ñu tegal la salle à manger def ci taabal jox la fourchette ne la del lekk sa loxo càmmoñ ci ngay civilisé te saa yoo lekkee sa loxo càmmoñ seytaane ngay saxal waaye yow lekkoo yoo ajibuhu te yammunuhu xatta fitanaaku ba ci tànn musul defe dara ci càmmoñ day doon ñu won la ne pour nga civilisé il faut ngay lekkee main gauche di naane main gauche te loolu seytaane moo koy nekk mooy feebar yu bon ñu daal jigéen ji bu duggee si néegam ne asalaamualeykum saa yoo ne asalaamualeykum ña ña nga ànd ña ca biir kër ga àndandoo yi parce kër yëpp a ko am boo la lay salal ba pare ñoom ñu ñoo ràcc daal tëral seen jabar tëral seeni i doom di waxtaan di galoyaa bi ba ba ngay dellu si ci néeg bi ñu ngi ci biir ñoom di def ña nga ca coiffeuse ba léeg-léeg ñu àndal sa rouge a léeg-léeg ñu pousse fële sa poudre léeg-léeg ngay wër sa peñe doo ko gis léeg-léeg caabi yi ñu àndal ko xale yi di ci fo ñu bëgg koo delloowaat fa fàtte ko ndax ñoom it ñoom ñoom a yem dañuy fàtte soo ñëwee nuyoowoo ñu toog ngay war a tëdd fëggoo doolu ma lay wax comme genre gunóor lay nekk soo ko xooloon ci micro microscope day mel comme ay teeñ teeñ la gën a nurool ba pare gën koo sew bët du ko gis ñoo ñu dugg nag moo tax suñu yaram yi feebar yu bon yëpp tànk yi feebar yu façon bu nekk dañu dal parce que dañoo tuddewoo jullit ba pare te mënuñoo dund sunna woykat yi ngeen baal ma dama ne dafa jot ak Oustaz Mara Fall yéen dafa jot ñu jàngale jàngale nu yonant bi pratique am te bàyyi rekk bët ya la ñuuloon dañuy kukk la weexoon ne tàll dafa amoon doom bay baat ba mu dóoree jasis ga ba mu mbëkkee garab ga mu suq tooy na dañu war a jàngal nit ñi kifaayatul raari bii na nuuru daara yi ñoom mag ñi nit ñi daj ci yar njaboot ak jàngale ibaada te yéen seen woy yi sama waxtaan wi gënalu leen woyee leen bàqal kon yéen seen woy yi dugal leen ci pratique gu diine yi damay wax sama patron Youssou Ndour ma ne ko yow bu la neexoon Sénégal yëpp mokkal alquran parce que yow boo tari woon kaamil bi xale yëpp mokkal ko ndax loo woy sama sët bi am ñeenti ak sax mokkal na ko man nag duma xam lu muy woy man moom xam naa sama xel neexul ma wax naa ko ko wax naa ko ki ne la man ko yéen am ngeen responsabilité bu parce que lu ngeen woy waa ngi nii lu mu woy ñëpp mokkal ko te man ba ma daree waaraate ba tey li may waaraate fukki nit ak juróom duñ ko mokk parce que deretu africain dafa ànd ak woy ak fecc loolu suñu aada la moo tax gis nga bi saam di woy ñun ñëpp a jóg kurmuut ba ci man jóg naa fitas bu ñu xefoon rek ma daagu daal def samay paa yu baax loolu dafa bokk ci suñu deret mais nag loolu àdduna la il est temps 1440 hijriya junniy at ak ñeenti téeméer ba tey mënuñoo fexe ba message bi ñu yàlla jox ñu liir ko ba mu jeex yonent bi wax ni Fatima soo demee sa kaw jëlal sa ndeyjoor nga teg ko wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar du la jëral trois minutes nga ne yàlla teg naa sama ndeyjoor su ma deewee naa dekkee ji àjjana su ma dundee naa dund ci jaamu la yow sama borom daal di yootu sa borom kër teg mu teg loxoom sa bopp jàng ayatul kursi faatiya falaqee naas ngeen nelaw waa allahuma jannib bi seytaan wa jannib bi seytaan ala ma razaqtana ngeen ànd lu ngeen am muy barke seytaane du ko laal li yombul mu ne li jafewul moo tax diine dara dara jafewul ci lan yusadda diina ahadukum illa galabahu yassiru wala tuassiru diine dafa yomb mbokk yi sësu yéen jigéen ñi yéen laa koy dénk bu ngeen dematee ci néeg yi nuyoo leen su ngeen nuyoo ba pare xoolal du ngeen nuyoo te di ngeen def lu gën a jafe booyal ànd ko gën a jafe tànn kulooru sër ko gën a jafe te ay per ko gën a jafe semis de nuit ba muy àndal jaxase ba njambaan ba dugg génn jaagar jaagar yi ba moo gën a jafe mais boole ci sunna bi ndax loolu tamit yàlla bëgg na ko mais boole ci sunna bi boo ko defee boo yeewoo booy dugg sa toilette am na yu sew xoolal dàll yaa ngi tegee ci buntu toilette bi. bi ngay dugal sa dàll fooy ban tànk mooy dugg ah bi dàll bi laa wax de dàll bi laa wax ah dàll bi ndeyjoor mooy dugg gu toilette bi ko yàlla def ay biya màkk kon bés ni ki tey saa yu ngeen di solati dàll ndeyjoor bi bismillah dàll bi dalay sàbbaal ba keroog nga koy summi nga dugg ci douche bi ne allahuma jannib ni shaytaana wa déedéet allahuma inni auzu bika xubsi wal xabaisi xubs ak xabaisi boobu muy sobe bi ak jinne ji nekk du la fàdd ci biir douche bi bëri na ko am fumier dugg ci douche daanu damm dootul wér parce que jinne ji la moo ko moo ko moo ko fàdd te yonent bi wax na lu ko fay jële jarul fay sëriñ jarul istixaar jarul gisaane jarul xam allahumma inni a'udhu bika minal xubsi wal xabaa'is ngeen jàngal ko xale yi daara yii ñi yor ku ci yóbbu sa njaboot macha allahu taala xale jardin d'enfants yi lii ma leen di waxtaanal nii xam ngeen ban niveau la xam nga Iran Ndao day wax naan niveau primaire lay jàngale man maa ngi jardin d'enfants te wóor na ma ni am na njaayeen yu toog fii <laughs> am na njaayeen yu toog fii jërë ngeen jëf xamu xamu xamu njaayeen yu jigéen ñi laa wax ñu góor ñi bokk ni ñoom laa ko ñemee wax ak njóobeen sax kon mbokk yi guddi na dama bëggoon rek ngeen xam ne yi gën a terre à terre des na waaw jërëjëf lii moom euh, libaas moom bëgguma sax di ko di taseeg moom ak monsieur Ndiaye ndax gàcce ndax moom moom ay leneen ak leneen ki ne libaas xam na li may wax xam na ne li may wax dëgg la euh, julli gi sanq bi ñu noddee dama ne gis nga góor ñëpp dem nañ julli ji duñ ma wax ne ñi fi toogoon ñëpp dañoo am ngàntu regal mais xam nga lu tax mais maquillage bi ak tagal bi la ñuy bañ yàq pour jàppaat dafa waylun lil musallina allazina hum an salaatihim saahuun képp ku dugg foofu ñuy bañ a tudd ñun gaa yéen da ngeen a jongo ma sax du ngeen fa dem damay waaraatee tuuti nii rek mais man wóor na ma ne ku ñibbi dina fay mais nag ndax dinañ egg kër ga yàlla la gën a wóor fexeel ba booy génnati jàppal bala ngaa mag yow su jotatee fu mu la ti fekk jullil ndax inna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquuta julli dafa am heure dul fu mu la neexee rek ñu nag dañuy dajale tisbaar takkusaan timis bëggee dem kër ga nag léegi sax nag diriyaankee dañoo xewal bu neex toog ci seize koo gis sam naa sama tànk yi sama ndigg yi te bu ñu ne woon léegi libaas day séddale fii ay machine kenn du la fa jiitu suñu woon président Macky nee na ku jiitu palais sa 10 millions rafet <laughs> wallaay ngay xam ne tànk méttee mais bu julli jotee ku nekk xëcc sa 16 dañ ko def sax léegi nag moom mort léegi booy xool xale yu tuuti te mën ngaa rukkoo boo yemee ba ci sujjóot bi sax dëgg la ndax feebar am na wala handicap am nga soog a nag ki waaye boo ma mënee taxaw taxawal ba nga rukkoo ba pare. nga sujjut bi nag nga soog a toog waaye yow lépp toog rek similaak sala salaamaaleykum te ku fi président doon recevoir doo bëgg mu geex mais ñi fi yàlla di recevoir ñëpp a yàkkamtee pare benn bi alaaji libaas imaam yi ngeen baal ma de dama bëgg a benn question bu ndaw ci laay joxe xale yu baax yi nga xam ne ñoom dama leen a réserver li jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax seen yëfa euh, wóor na yàlla bi ma Ndeye Niang di boobu maa ngi Chine mu ni ma ndax conférence bi di nga ñëw ma ne ko dinaa ñëw bi ma jógee Chine jaar Istanbul dama ñëw lii ba démb bu fàtte woon naa sax tellement que marque bi bu ñëwee damay jaxasoo ne de suba le premier mais léegi laa koy wax Fatou Kane ma ne ko en tant que membre bureau fédéral en tant que syndicat secrétaire général syndicat dama fàtte première mai ndax ndax Euh, euh, ki mouvance dem màkk bi pèlerin yi luñ ma songe ak ak ak voyage bi ma defoon ni mu guddi mais ma ne nday ñan mu gi sax maa ko doon sonn ma ne ko wax ma heure suñu handicap la suñu commencé woon quinze heures bi ñu waxoon jàpp 16 heures doon nañu waxtaan lu yaatu saam dina woy ba mu doyal mais respecté wuñu heure benn heure kese la sénégalais respecté mooy aéroport bu ñu la convoqué 20 dix heures avant yaa nga aéroport toog di taxawaan lu dul aéroport respecté wuñ ko parce xam nañ ne avion bi du leen xaar waaye ngisali yaa yi Cheikh mu ngo ah sama xale yaa ngi nii nag borom ñii nag ñoo nekk ci salon bi rek di defar sañu kanam yu yàgg yi yàlla na waa ana Fatou sama doom ma ko njidda <laughs> merci beaucoup te bu ma dee fay ñu ne ma tataay yow borom salon bi nee na bul fay loolu ndey ñang moo ma ko defal yàlla na ko yàlla fay léegi imam euh, sëñ Fall man damaa bëgg a poser benn question ci laa leen di joxe rajo bi man julli yi may gis fii Sénégal man dama ci xaw a tiit ndax man saa yu ma toppee si imaam yi walla góor ñi man daal ni ñuy jullee jaxal na te yónnent bi dafa waxoon ne sallu kama ra'aytumuni usalli léegi Fatiha. ban position la ñëw ci julli <coughs> mooy premier mooy deux mooy trois mooy quatre mooy cinq mooy six wala mooy septième mooy lan mooy première ñu wax première yëpp nañ ma yëkkati seen loxo kon bu ñuy bu ñu ne allahu akbar rek lu ñu war a wax fatiha foofu laay delloo micro bi léegi nag duwaawul istiftah bidaa daal waruñu koo def war nañ ko def mooy lan luñ koy waxe ah <coughs> waaw bëri na ay siron maa ma wax leen benn bi rek après ma bàyyi allahumma baa'id bayni wa bayna xataayaaya kama baa'adta bayna al mashriq wal maghrib allahuma naqini min alxataaya kama yunaqqa sawbal abyad min ad-danas waxsini bil maa'i al-baaridi wa barad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saa yu kàbbaroon loolu lay wax gis ngeen imaamu màkka yi da ngeen di gis bu ñu kàbbaree dañ naan tekk léegi na tekk boobu ñoom dañuy seetaan film wala wala dañuy xalaat seen waa kër lu tax julli am li ñuy wax al iftiraas ak tawarruk ci toogin bi ci am ku amul ngànt position wu ataxiyatullaay loxo bi fan la war a nekk nan la ñuy defee tashahud hmm? loxo bi nan la position bi nan la ku ma koy won yàlla fay la ah ni ngay ni ngay def taal teg sa loxo fii ah. yonent bi mosu ko defee noonu léegi nag xooli leen yonent bi lu mu ko doon def booy tëj julli gi noo koy tëjee attahiyaatu la bu jeexee nga teg si la asalaamaaleykum léegi salaatul ibrahim ya bokk ci duwaa bi si topp bokk ci ñaan boobu xam ngeen ko après salaatul ibrahim ya li yonent bi doon wax xamu leen ko ah kon bu ngeen paree rek asalaamaaleykum dem seen yoon soo di subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah léegi bii bii wax nag fan fan fi yonent bi doon ko wax te mu nekk si téere yëpp allahumma inni a'uuzu bika min azabi jahannama wa min azabi alqabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnati masihi dajjal bokk si julli Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah yal nañu yàlla may dégg ak topp wa axiru daawaana ani alhamdulilahi rabbil alamin fatiha septième position la après nag ngeen dem ci téere yi gëstu ji bu ñu tasewaatee ñu waxtaan ji ngeen baal ma ak